بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi am mbégte ak kontaante dajawaat ak yéen ci fàttali leen tomb bi nga xam ne waxtu yi yëpp moom lañ toll di ko fàttali ndax ci waxtoom lañ nekk ndax ñu ngi ci aj ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala ñi yàlla dogal ci ñoom aj yëpp yàlla na leen ko yàlla nangul semaine bi passé am na tomb yu ñu fàttali woon ci mbokk jullit boobu nga xam ne moom la yàlla farataal ci moom aj yàlla dogal mu war a dem aji tey tomb bi ñu jël mooy ziyaara ji masjidu nabawi jullit bi bu yàlla dogalee ci moom mu war a aji bu fekkee réew mu mel ne Sénégal la bu ñuy dem ca Médina la ñuy njëkk a wàcc Médine nag xam ngeen ne bokkul ci aj bi moo tax amul lu fay farata ci wàllu aj amul lu fay sunna ci wàllu aj amul luñ fay bëgg ci wàllu aj lu dul am na xeetu jaamu yàlla buñ fay def te mooy ziyaara ji yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ak julli ca jàkkaam ja ndax xam ngeen julli ca jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ci yonent bi wax ci ay xéewal yi ci nekk kon tomb tey mooy ñu wax ngëneeli jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax bu fa yàlla eggloo ab jullit mu war a xam fan la yegsi fan la ñëw almadina hiya muhaajiru nabi sallallahu alayhi wa sallam wa maswaahu medinatul munawar mooy këru gaaj gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy kër gi yonent bi gàddaay jëm fa yonent bi bàyyeekoo na Makka jëm Madinatul Munawwar balaa mu doon ñëw ca Médine yàllaa ngi dogal Médina ngi tuddoon Yasrib keroog ba yonent bi laxasaayoo yàlla xamal ko ne bul fanaan Makka ndax yéeféeri Makka ngànnaayu nañ bis guddig tey fas yéene laa faat yàlla xamal loolu jibril jibril wàcc ci ngën gi mbindéef muhammadun sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jox xabaar bi keroog la yonent bi la xasaayu ànd ak sang ba abu bakrin siddiq radiallahu anhu wa ardah ñu daal di war seeni gëléem la xasaay jëm yasrib keroog ba ñu yegsee ca yasrib góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp génn nañ di teeru gën gi mbindéef muhammad sallallahu alayhi wa sallam xayru xalqillah ba mu yegsee ba ñu teeru ko dalal ko keroog la tuddee dëkk ba almadina almunawwara dëkk bi yàlla leeral ci dëkk boobu fii al masjidul nabawi ca la jàkka yonent bi nekk jàkka jooju lay listuwaaram mooy ba yonent bi yegsee ñu koy dalal dëkk ba yépp a xëccoo ku nekk ne sama kër lay dal bi loolu amee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wàcc gëléem gi mu waroon daan ne gëléem gi mooy wone fa may dëkk gëlëm gi jéego na ay jéego ba yonent bi wàccee di romb kër ya ak buntu kër ya ba yegsi ci benn bayaal bu yaatu gëlëm gi daa di yës yonent bi ne fii mooy nekk sama dëkkuwaay waaye fa gëlëm gi yës dafa amoon ay jirim yu ko moom ñu dem seeti seeni kilifa waxtaan ak ñoom yonent bi jënd barab ba fa la ñu tabax jàkka yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy fi jàkka ji nekk tey kon ca Medina fa la jàkka yonent bi nekk jàkka ju tedd jooju jàkka jooju nga xam ne huwa ahadu thalatha masajid jàkka ji mooy benn jàkka ci ñetti jàkka yi nga xam ne laa tasuddu rihaala illa ilayha wax ji ñuy wax nag neexut a dégg ci ab sénégalais ndax ab sénégalais moom dafa jàpp ne barab ba mu dëkk jàkka ya fa nekk ak nit ña fa nekk ñoo gën barab yépp ci àddina bi lii ñuy wax nag moom boroom xam-xam yi danañ ko mën a dégg ak nit ñi am xel ak nit ñi nga xam ne lislaama leen doy ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñetti jàkka dong ci àddina ñoo jar laxasaayut yenu say saak gàddu say bagage di tukki ñetti jàkka kese loola moo tax ñu ne wax ji ñuy wax du neex ab sénégalais yonent bi nee na ñetti jàkka dong ñoo jar ab julit laxasaayu takku yenu ay bagage am tukki ñetti jàkk ñu ne yonent bi ban moo ci njëkk mu ne almasjidul haram mooy néegu yàlla bi nekk Makka te mooy alkaaba boobu dong moo jar laxasaayu tukki ñu ne ko bu ci tegu mu ne wa masjidi haza ak sama jàkka ji mu joxoñ jàkkay Médine ñu ne ko ak ban mu ne masjidul aqsa jàkka ji nga xam ne moo ngi Jérusalem ca Palestine te tey yahud yi teg ci loxo ñetti jàkka yi yonent bi nee na moo jar ab jullit laxasaayu takk yenu ay bagaasam tukki kon jàkka ju njëkk jéeg ju mujj ji taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg tey mooy masjidi haza sama jàkka ji wa ma anna ziyarat al masjid an nabawi laysat shartan wajiban fi al hajj bal laysa laha bilhajji ayu rabita aw sila yéen sama mbokk julit na ngeen yëg ne ziyaara ji jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul benn relation ci warugaru aj xanaa bokkul ci aj amul benn buum gu yeewee jàkka yonent bi ak aj amul genn armal guñ fay def lu dul nag illa annaha mashrua wa mustahabba fi ay waqtin tiwaal al aam lu dul nag sopp nañ rek ab jullit bu ko yàlla maye kàttan ak mën-mën ci waxtu wu nekk ci jamono ju nekk mën naa jël ay bagaasam laxasaayu tukki ziyaara ji jàkka yonent bi alayhi salaatu wassalaam beneen bi mooy ab jullit bu ko yàlla baaxee tamit mu yegg si makkatal mukarram sunnaal na dana nekk sunna mu dem ca Médine ndax julli fa ndax mu am kat xéewal ak barke yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam digee ci ku julli ci jàkka yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy sunnaal nañ ci jullit bi mu dem Médine li salaati fil masjidi nabawi sunnaal nañ ci jullit bi mu dem ba Médine fexe ba yegsi ci jàkk yonent bi alayhi salaatu wassalaam daa di fay julli yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na fa salaatu fihi xayrun min alf salaatin fi ma siwaahu illa al masjidul haram te bi nee na ñaari ràkka ci sama jàkka ji moo gën junni ràkka feneen ba mu des màkk fépp foo julli ci kaw suuf ginnaaw màkk jàkka yonent bee gën foofu nga julli mbokk yi ma ni fépp fu ngeen julli ci kaw suuf ginnaaw màkka jàkka yonent bee gën foofu benn jàkka dong moo gën jàkka yonent bi muy màkkatal mukarram muy kaaba gi fa salaatu fi lmasjidi alxaram bi miati alf solo julli ca makka tolloo naag miatu alf sola téeméeri junni julli jàkka yonent bi nag alf sola junni julli kese la kon fiñ la dig boo fa defee ñaari rakk mu tolloog junniy julli yaakaar naa boo yegsee barab boobu loo mën a jàppoon loo mën a def war nga kaa bàyyi fëx jëm ca jàkka jooju kon sopp nañ ci jullit bi isa wasala azairu ila al masjid nabawi bu jullit yegsee ca jàkka yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu war a njëkk a def mooy na jiital tànk ndey jooram buy dugg su jiitalee tànk ndey joor bi na ci boole bismillah والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك yow sama mbokk julit bi yàlla baaxe nga bàyyi ko Sénégal jëm Madinatul Munawar boo yegsee jubal ca jàkk yonent bi àndal ak sa xel teeyal dalal jiital la sa tànk ndeyjoor tàmbalil ci tur yàlla tabaraka wa taala jullil ci yonent bi làqatul ci ginnaaw yàlla tabaraka wa taala ci jëmmam ju sell ju tedd ji ak nguuram gu yàgg gi nga muslu ci moom ci seytaan nga ñaan ko moom yàlla mu ubbil la buntu yërmande yi loolu mooy ñaan bi ngay jàng bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah auzu billahi alazim ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك وهكذا يسرع هذا الدعاء عند الدخول سائر المساجد noonu la ñu yoona la ci yow mboolem jàkka yi nekk ci àddina bi boo fay dugg noonu nga fay duggee nii ñu yoonalee ci yow tey ngay dugg jàkka ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jiital sa loxo ndey joor sa tànk ndeyjoor jiital sa tànk ndeyjoor noonu la ñu yoonalee ci yow jàkk jooy dugg nga duggee noonu wa baada duxulil masjidi nabawi ginnaaw ba nga duggee ci jàkka ja ci biir jàkka ji li ngay njëkk a def mooy yubaadiru bi solaati rakaatayni gaawal nga julli ñaari rakk tahiyatan lil masjid nga nuyu jàkka ji gaawal nga julli ñaari rakk nuyu jàkk ji boo ñëwee bul toog bul ubbi benn téere bul jàng lenn ginnaaw ba nga duggee gaaw tur rek jëm ca julli ñaari rakka nuyu jàkk ji wa abaza law kaanat fi rawda aka neexoon nag nga dem ba ca barab ba yonent bi wax ne diggante sama bàmmeel ak sama minbar foofu benn dër la ci dëri aljanna yi nga julli foofu ñaari rakka yi allahu akbar ma bayna qabri wa minbari rawdatun min riyaadil janna sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na sama bàmmeel fañ ma suul ak sama minbar fa ma daan taxaw di xutba benn dër la ci dëri aljanna yi aka neex jullit bu duggee ci jàkka yonent bi mu dem ba foofu julli fa ñaari rakk su fekkee loolu dana difficile ci yow dana métti jullil foo mën a am ci jàkka ji soo jullee ñaari rakk yi ba pare jógal demal jublu ci bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam fañ ko denc boo demee taxawal ci kanamam nga jublu ko nga nuyu ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam allah allah allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah jubalal ca jàkka yonent bi alayhi salatu wassalaam soo duggee jullil ñaari rakk soo sëlmalee neel bërëb neel bërëb jubalal cëb bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàkkaarloog moom ca bunt ba nuyul sang bi sallallahu alayhi wasallam ci yar ci baat bu suufe ci teggin ak dal ne ko assalaamu alayka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salli alayhi jullil ci moom salawatullahi wa salaamuhu alayhi ya afdal alwara ya khayru khalqi llah ma khalaqa alilahu wala tura basharan yura ka muhammadin bayna alwara allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam jullil ci moom allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama salayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi laalamina innaka hamidun majid boo waxee allahuma aatihi alwasila walfadila wabasu maqaman mahmuda alladi waadta loolu tamit deena doy mbokk yi yëg leen ne mosu leen taxaw ci kanamu ku gën kii yëg leen ne kii mooy waaja sallallahu alayhi wa sallam kii mooy sangu mbindeef yi yëgal ne yaa ngi taxaw tey ci ëllëg yowmal qiyaam koo xam ne bu nit ñi dekkee mooy yor drapeau bi yëgal ne yaa ngi taxaw tey ci kanam waa ji nga xam ne ëllëg bu ñu dekkee moom mooy njëkk a dekki yëgal ne yaa ngi taxaw tey ci kanamu ki nga xam ne ëllëg aljanna caabi ci loxoom lañ koy teg yëgal ne yaa ngi taxaw tey ci kanamu ki nga xam ne ëllëg bu jaam ñi jàqee moom dong moo leen di xettali sallallahu alayhi wa sallam laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa allah soo defee loolu ba pare tournel tuuti ca ndeyjoor taxawal jàkkaarloo nga ak bàmmeelu abu bakrin siddiq nuyu ko ñaanal ko yërmandi ak njëggal ak ngërëmal yàlla ci moom kii mooy as siddiq kii mooy goro yonent bi alayhi salaatu wasalaam kii mooy xalifa yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi njëkk kii mooy abu bakrin siddiq kii mooy ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne su ma doon ut xarit kii mooy nekk sama xarit kii mooy ki àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca bisu gàddaay ba kii mooy ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ëllëg bu ñu duggee aljanna ñëpp seen ngëm dana yokk mu ne ba ba mu des Abu Bakr li mu doon gëm gëm na ko ba pare soo defee loolu ba pare tourneel tuuti jëm ca ndeyjoor ba tey puus taxawal yaa ngi ci kanamu Omar ibn al-Khattab al-Faruq baayu Hafsa amirul muminin law kaana nabiyum baadi la kaana umar bu doon ab yonent dina ñëw sama ginnaaw umar mii lay nekk kii mooy ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne toll na ci ngëm seytaane sax da koo ragal bu jaaree ci mbedd seytaane daw jaari beneen yoon nuyu ko ñaanal ko yërmande ñaanal ko njëggal ak kontaante tabaraka wa taala waaye mbokk yi léeg-léeg ñi réer ñi jàngul ñi seen pas-pas dëgërul bu ñu yegsee ci jàkka yonent bi au lieu ñu jële fa tiyaaba ay bàkkaar lañ fay jëlee dafa def ay bidaa loo xam ne amul ci diine langaamu naan damay laal ay barrière ak damay fon miir ak damay fon tapeek damay sujjóot foofook dama fay tàllal sama loxo di fa ñaan kenn du tàllal loxoom ci bàmmeelu yonent bi di ñaan booy ñaan tourneel jublul xibla kenn du fa raay karo kenn du fa raay moket kenn du fa raay ay weñ jublul xibla ñaanal yàlla tabaraka wa taala kuy ñaan xibla lay ju lay jublu daa di ñaan yàlla tabaraka wa taala waaye doo ñaan yonent bi kon mbokki julli di doomi ndey lii moo doon tomb bi nga xam ne tey amoon nañ mbégte kontaan te dajeeg yéen wax leen lan mooy Médine wax leen naka la ñuy ziyaare jàkka yonent bi alayhi salaatu wassalaam incha allah sunu dajawaat bii di ñëw ñu ngi li waxtaan ak yéen sunnaay ziyaare jàkka yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo amee ay njuumte ñu ngi koy jégglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu